là. Mm-hmm. waaw vous partagez. oui non non li muy wax nii ñëpp ngi koy wax. waaw ñëpp ngi koy wax c'est-à-dire athlète bi bala muy dem j'en parlais à mon jeune frère ma ne ko. Mm-hmm. Euh, fi ñuy fayiree mais dañuy bàyyi bañ euh, fiche technique. Mm-hmm. gars yi dañu koy def fédération yi dañuy def fiche technique. avec tout ce dont ils ont besoin pour voyager. ñu naan la tey suba ëllëg ngoon. président de cette technique bi dañuy dem ministère di rang midi ba guddi ñu ñibbi. athlètes yi ñu nga regroupement la fédération paye athlètes yi di cramé ci naaj bi ba cinq jours xamoo kuy dem toi tu as demandé quinze athlètes après hop on t'appelle on te dit cinq lañ la war a mën a jox baa six comment tu vas vers les autres xam nga ñu kooku bu demul dafay xëy bàyyi. à quelques à quelques jours de la compétition. bon maintenant c' est le dilemme des présidents de fédération dañuy dem ba bu jóg ñoom seen bopp dootuñu xam naka la ñuy def maintenant moi j'ai dit <clears throat> ma dem ministère joxe sama fiche technique six mois avant. bëgg naa trois mois avant ngeen ne ma deux bi lañ lay jox wala trois bi lañ lay jox ma xam xaalis baa ngi nii. ma xam ma woote regroupement ne leen deux lañ ñu jox trois lañ ñu jox ñu mënee dem ñu dem bu ñu mënul dem ñu jox xaalis bi ñoom ni leen merci monsieur on ne peut pas dans ces conditions. cest à président fédération yi tamit ñoom ñooy tirer trop. ma dama la koy dama la koy wax amicalement ne leen yéen yéen ay responsable yi. Mhm. parfois il faut dire non parfois da ngay bañ infrastructure le dojo national a été démoli pendant ce temps on se prépare pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Mhm. fii 2026 ils ont créé une académie les Français sont venus xale yaa ngi regroupement actuellement. Mhm. ñu daaneel dojo national pour des raisons qu'on ne peut pas dire. léegi nu ñuy def. la la fédération mondiale a offert plus de cent tatami tapis boo xam ne dañ ko jël dugal ko dossier national ne bu leen ko laal tant que on n'a pas enlevé officiellement. Mhm. sinon c'est détournement d'objectif. gars yi ne non daaj on vous donne heures pour partir ci condition yooyu le président Babacar Ngom est venu di roñ tapis yi di ko di ko <laughs> yuuxu nañu mais des gens ont pleuré l'autre jour au Deuxième national et malgré ça le président xol bu tàng mu daal di bind ministre bi ne on ne parle plus en compétition c'est fini ça c'était une réaction normale mm. j'ai réfléchi j'ai dit oui il a raison après je l'ai appelé j'ai dit non tu vas sacrifier les gosses mm-hmm. pourquoi mm-hmm. parce que quand il demande dix billets au ministère il n'a pas dix billets moom moo jël xaalisam yokk ci dix billets avec ses amis ñu dem championnat d'Afrique il gagne avec Mbagnick Ndiaye qui est qualifié pour les Jeux olympiques. Mmh. difficilement. dina ci les juniors les cadets di préparer en même temps les Jeux olympiques de la jeunesse. Mhm. et c'est le cas du karaté c'est le cas du taekwondo c'est le cas du kung-fu le kung-fu qui va organiser les championnats d'Afrique ici à Dakar du au 11 du 6 juillet au 11 Dakar. quinze pays vont se déplacer ñi ngi daw ñi ngi daw fi mu nekk. on non non parce que. y a même communication non xam nga boo tiitee danga naan du mu communiquer alors que il prépare les Jeux olympiques de la jeunesse boo gisee booy kung fu yi da nga naan c'est pas vrai ñi du ñu ay nit. le cas de Louis François Mendy. Mm. pour en revenir. Mm. li mu wax dafa wax loo xam ne ñëpp xam nañ ko mais dama il faut pas que les gens soient offusqués li muy wax c'est pour que ñu augmenter prime yi dix mille francs jour. moom kay delloo na leen ko sax. waxoo dina leen je vous renvoie. non Aïcha dinaa la mere quoi <laughs> parce que non gis nga gis nga gis nga Aïcha. delloo na leen ko. gis nga Aïcha le football quand le football euh, gagne alhamdulilah on aime le football. waaw. Ouais. fu égalité équité. mais dans ce cas moi je le disais depuis presque 15 ans maa ngi koy ans ma ne nañ jël football bi ñu loge ko président de la république bokkutul ministère des sports parce que quand le football gagne quand le football est qualifié pour les euh, pour les pour la coupe du monde le football a des primes de participation de combien presque 6 milliards plus maintenant match joué match gagné prime et mais le football mën na jël boppam en charge. la faute pourquoi justement le football au détriment des autres. Euh, non c'est pas au détriment da en faveur du football. pourquoi justement parce que le football est universellement mondialement aimé et reconnu par tout le monde. mais yéen defal ndànk rek defal ndànk rek c'est une question pertinente quand. tu prends l'équipe nationale du Sénégal nga on doit aller à la coupe du monde wala on doit jouer contre le Cameroun. mais on part plus parce que amuñu amuñu titre de transport. dëkk bi du tàkk. ah ok. quand le karaté dit je ne parle pas ñu ne on s'en fout la wax excusez de parler comme ça. ko xool. yoon nekku ci. Mhm. mais quand même avec lui François Mendy 80 000 c'est scandaleux quand même. Bon. non euh, Pape Pape dafa mel ni tu n'es pas au courant. waaw mais mais bon, non je veux wax nii nee naa la. loolu du mës a daj. tant que tant que dindi ko président fédération yi ñooy taxaw daal ni lii dootuñu ko nangooti. lan lan la mooy dix mille francs par jour. dix mille francs par jour. Ah, dirigeant vingt mille francs. ñaar nga bëgg mais comment comment ne peut pas inverser les rôles le dirigeant il a vingt euh, euh, plutôt l'athlète à vingt mille. le dirigeant à dix mille. mais pourquoi pourquoi ne pas décaisser de l'argent par exemple. loolu bu amoon sax bu doon am sax mu tane bu doon da ngay génn xaalis teg ko léegi sur la table mu tane. mais pas ay. bras croisés. man j'ai dit au président de la fédération cadre kii bi dama ne ko man dewul du ma dem ministère pourquoi mu may wuti mu may wuti mu ne ma yaay chef de ma ne ko dewuma je ne pars pas mais mais bëggoon naa